bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah mawlana muhammadin wala alihi wa man wala ihwaani fi la jamaati islah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mu mel ni bunt bi jëkk ci xibaar yi moom mooy ñi nga xam ne mooy wax Hamas ñoom ñooy woo mboolem koo xam ne julit nga rawatina ñi dëkkee foofu ci eh, ci Cisjordanie ak Quds ñu gaaw lu ñu mën di àndandoo ñoom ñëpp nekk mbooloo jéem a dem nag samp seeni tànk yu dëgëy dëgër foofee ci euh, masjidul aqsa loolu dikki démb am ci suba euh, démb dikki tey ci talaata ji lu tax ne dañuy woytandikuloo li nga xam ne commencé nañu nemmeeku ko fax te muy am ci jàkka ja muy ay yaxut yoo xam ne ña ngay tilimal ak ñaawal ak jéem a soppi melokaanu diine ja ngir jéem koo melal benn melo rek moom mooy melawu yahud mu mel nag ñoom nag li waa Hamas di daw ak di ko ragal foofu moom mooy soppi gi ñu bëgg a soppi jàkk ji ndax li ko def mooy mbooloo bi nga xam ne ñoom ñu yor projet boobu nga xam ne moom mooy jéem a defaat masjidul aqsa samp fa li nga xam ne moom mooy tempul salam moom muy jàkk yi Suleymaan ji ji wala bokk li nga xam ne moom mooy xaykalam muy li ñuy tuddee la tempul salamo dafa mel ni ñoom am nañ ci taxawaay gu dëgër dëgër mu mel ni nag loolu nag tax na ñoom ñu ne ñu ngi woote lépp lu ñu mën pour nit ñi def effort daal di fay jàll dëkk bi ñoo baldatu sair démb nemmeeku nañu ñi nga xam ñoom ñooy yaxut yi daal di fay tab bi daal di fay bërëxlu daal di fay xët dugg dugg fa te ñoom fu ñu dugg rek musiba mën na faa am moo tax sax da ngeen di gis na wax dëgg yàlla démb am na ñenn ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan di ay doomi palestine ak ay gaañu gaañu ci song boo xam ne Israël mu ko song ci benn kër ci gox boobu nga xamante ni dëgg-dëgg moo nekk ci mu muqayamu jabaliya ñu nemmeekuwaat ba léegi ci waa Israël maanaam ci armée ba maanaam loo xam ne dolleeku na ba fulandi lool lool lool ba ba man bu fulandi woon ñaar ñu ne waaw bu fulandee ñett ba ñeent ba léegi mu ngay fulandi ba juróom-benn mooy ay soldats yoo xam ne seenum ndof foo ko takk weesu na fa tàggu nañu ak seenum xel di laaj li nga xam ku leen mën a assister psychologiquement maanaam ku leen mën a taxaw ci wàllu xel ak xalaat mu li apport psychologique mu ne léegi li ñuy tuddee apport psychologique wala bokk yéen a xam ne nu koy tuddee soutien psychologique ak nu mu mën a demee daal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy soldaar ya ña ngay bëgg ku leen jàppale ci seen xel yi nga commencé yi nga xam ne commencé naa rëcc ñuy tàggoog seen sago ku leen di jàppale dimbali leen ba ñu nekk ay nit parce que ci jamono bi weex ni ndof gi bari na ci ñoom journal bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Israel Iyum e mu nekk benn journal bu nekk ci réew yahut yi ñoom nee nañu seen organisation défensive aérienne maanaam seen taxawaay ci wàllu aar seen bopp ci jaww ji démb daal dinañuy gàllankoor missile woo xam ne mu ngi jóge woon foofee ci gox bu ñuy wax xiifa maanaam ci xiifa foofu ci Soudan ci càmmoñu Palestine doon jëm si ñoom Bidahot Ahronot ab journal israélien la nee na armée israélien démb daal dinay euh, sànni ab missile boo xamante ni mu ngi ko jubale ci ay picc yoo xamante ni ñu ngi tiimoon benn dëkk bu nekk xiifa picc loolu na li ko def na moom mooy loolu daf ko amoon benn lënt lënt mu mel dafa lëndëm ci moom ne picc yooyu pour moom lu doon jublu ci moom la doon jëm ci dal seen kaw kon nag dëgg dëgg nag tiit nañ nag ci libaane yi nag lool lool nag ndax tiitaange weesul nga fekk mbooloo ay picc yoo xam ne ngay naaw ci jaww ja nga na fa bërët daal di fay sànni li nga xamante ni kat moom mooy euh, mboolem li nga xamante ni jëm na ci wàllu woowee nga xamante ni moom moo jëm ci yooyu le picc ci jamono boobu wasraya Quds bi nga xam ne ñoom ñoo nekkee foofee ci tool karam maanaam seen contingent boobu mën nañ wax ne démb song nañu ñaari béréb yoo xamante ni yahut yi ñoom ñoo fa yoroon seeni kuréel ak béréb bu ñu xam nuuru shams ak muqayyamatul karam daal di jël seeni bërigo yoo xam ne fees na dell ak li nga xam ne moom mooy essence ak lépp lu mën a tax mu daal di tàkk daal di explosé daal di koy dóor ci ngànnaay yi nga xam ne moom la yahut yi yor démb tamit li nga xam ne waa jazira wax na ko nee na démb jàmmalo bu métti wéy na di am ci diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne ñooy yahut bi nga xamante ni ñuy tuddee yahut ñu ngi woon ci boor yi dëkk bi ñuy wax tool karam kon jàpp na démb tamit foofu jàmmalo bu taratar moom mooy li am Kataibul Qassam ma nga doon wesaare démb vidéo boo xam ne daf kiy fësal song bi mu song contestant bi ñuy tuddee liwaa u trois cent bu yaxut yi ci seen direction yi waaye ci loolu nag gis nañ ne nag waa Palestine rawatina ndaw ya ñu ngay jàkkuwanteeg jafe-jafe bu réeréy ci wàllu ndox ci ñàkk giñ ko ñàkk nag rawatina ci muqayam yi nga xam ñoo nekk ko te Khan Yunus yéen a ngay seen ay xale yoo xam ne ñu ngay gàddu seenu bidon fu nekk ñu ngi fay dugg di wër ngir mën a am ndox mu mel ne nag ndox nag ñàkk na fa wax dëgg yàlla metti na lool ndax xam ngeen ne ab jullit rawatina nag bu fekkee ñàkk na ndox dafay daal di metti ndax ndox moom ku ko mën a ñàkk sama metti waaye day rawati jullit bi nga xamante ni dañ ko tëkkaleeg ndox ci ab jaamu yàllam bi ñuy waxee laab te nag wax dëgg yàlla ndox nag dafa ñàkk lool bo ba léegi ñu koy wër ci anam yu méttee métti armée israélien ma ngay sàkk lu tolloog ñeenti téeméeri junni nit ñu daal di génn béréb yooyu maanaam ma ngay sàkku képp ku dëkkee gox boobu ñu tuddee Khan Younis nga daal di génn na daa jàpp ne daal li mu war a def moom ci ay opération foofu la koy def ci loolu sax nag dafa mel ne dafay def benn menace di wane ne daal ñoom bu ñu duggaatee Khan Younis li mën a am rek ginnaaw bu fa génnee ñetti weer seen dugg foofu mooy ku fa mënta génnee drapeau blanc maanaam tàllal ko wane ne bokkuñ ci xeex bi daanaka dinañ la massacre wala maanaam dinañ la daal di faagaagal kon ñoom lu tolloog ñeenti junni wala book ñeenti téeméeri junni junniy doomu aadama ñoom lañ bëgg ñu daal di génn ci gox boobu démb na leer na ci waxtu yi nga xam ne moom moo mujj li nga xam ne xew na xan yonos day na waar rawatina ci diggante euh, ca suba ja maanaam ci waxtu ci suba si ba muy sept ci suba ba jàpp li nga xam ne mooy huit heures ay song yu bari yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy yahud def nañ ko ci béréb bu ñu tuddee mantiqatu mataahin ci mantiqatu qarara ci càmmoñu xan yanus ak ay song yu bari yoo xam ne jubal nañ ko ci xayu cheikh nasir jubal dugal nañ ko ci béréb bi ñu xamante xatu balat wasatu xaan yanus ak ay song yu bëri yoo xam ne jubal nañ ko ci dëkk bi ñu xam baldatu isaan al nekk ci penku xaan yanus ak ay song yoo xam ne daal di nañ koy lëkkale jokkale ko ci ay béréb yu féete penku ci xaan moo tax lim bu bari ndeysaan boo xam ne takku nañu démb ñëw nañu ci polyclinique Nasir Nasir muy majmu Nasir ak tibbi boobu nga xam ne moom moo nekk foofu ci xaan yanus ngir li nga xam ne moom mooy song song yooyu nga xam ne Israël moo la doon def kon kon jàpp leen ne démb daal Israël gox boobu ci wàllu Khan Younis daal dina fay song ñu baree bari ba pare li muy sàkk mooy nit ñi nañu génn gox ba daal di koy yëlëb loolu nag nekk na lu doy waar ñi nga xam ne mooy société civile bi nga xam ne moom moo nekk ci Gaza maanaam xam ne ñoom leen tax a jóg rek moom mooy xettali askan wa ñoom wax nañ ne armée Israël dafa sàkku lu tolloog ñeenti téeméeri junni ñi nga xam ñoo dëkkee foofe ñu génn ci gox yooyu ci féete penku foofe ci Khan Younis niki noonu tamit ñoom démb jot nañu xettali eh, lu tolloog eh, fanweer ak ñaar ci ay néew yoo xamante ni daal ñu digg maanaam ràññeele nañu teqal nañu diggante néew ak ñi gaañu ba àgg nañ ci fanweer ak ñaar loolu nag dara waralu ko dul song bi mu Israël song foofu ba ñoom daal dëgg dëgg démb xaw na nañu yéeme lool ndax nee na mënuñu yëngal benn mouvement démb pour euh, ci seen i ci seen i mbir ngir li ñu gis démb mu fay am lool nag mu jamononteeg ñi nga xamante ne moom mooy américain yi wax nañu ne ci li nga xam ne fësal nañu ko am na am camion boo xam ne ngànnaay la bu ñu yónnee ñi nga xam ne moom mooy yaxuut yi loolu nag doy na waar ngir ñu mën a def ay songi song yu bari yoo xam ne ak ay yu bare bari démb ci suba si rawatina kër yi nga xam ne ay këru civil lañu ci nekk foofu ci Khan Younis te loolu nag wax dëgg tax na palestinien ak juróom benn ñàkk seen bakken ci ay xale ak ay jigéen mu mel ni nag démb tamit am na leen lu ñu nemmeeku lu raar loo xam ne c'est su ko gis benn américain ku amee bokk nationalité américain gàddu paakam di ko cuut ak di ko jam ñi nga xam ne moom mooy yahut yi donte amuñu image bi waaye nag relaté nañ ko ci kaw information yëpp bi ñu nemmee ko waa ji moom li nga xam ne moom moom euh, mu ngi yor paaka waaye amee nationalité américaine noonu la ñu nemmeekoo démb ñoo xamante ni démb may nañu deret ju baree baree bari foofee ci polyclinique bu Nasira bu Khan may nañ fa deret ju baree bari ngir xettali doomu aadama journal bi tudd al axbaar libanais muy les informations libanaises information bi muy xibaar boobu feddal na ne dëgg-dëgg loo xam ne jëlee nañ ko ci ay delluwaayu yu wér ci wàllu ñu yor wàllu politique beeg militaire yi foofu ci Sanaa muy capitale yeman xibaar ba ma ngay wane nekk li nga xam ne moom mooy waa yeman nag waajal nañu benn dikk boo xam ne dikk bu am doole la boo xamante ni nag dëgg-dëgg dootul nekk dikk bu ñu jubale ci bërëb waaye bu limu lay doon ci ay xeeti xeeti songu songu yooyu nag dana daanaka dana nekk ay. song yu raj raj loo yoo xam ne nag fu ne foo xaar ci Israël dana nekk daanaka fuy metti amul fenn fu ñuy bàyyi waaye man ñooñu nga xam ne dëgg-dëgg ñoom ñoo wax ci journal boobu nga xam dafa jige mouvement Ansarullah ma ngay wax ne lu tolloog juróom cay unité yoo xamante ni dëgg-dëgg li ñuy tuddee conseil politique supérieur bi te Mohamed Ali Houssi jiite ko ci daana ah, dana wax na ñoom ñëpp ah, diisoo na ci ñoom te ñoom ñëpp danañu taxaw taxaw tem song li nga xam ne moom mooy yahut yi ngeen dégg ne loolu moom mooy seen déclaration Joe Biden daal di wax ne moom balaa moo bàyyi faw li nga xam ne mooy Israël daal di am jàmm maanaam foofu daal di am jàmm gox ba beneen bi moom mooy beneen bi waa France wax nañ ne ci seen Jeux yi israéliens yi bu ñu ñëwee danañ leen aar sàmm leen ci loolu nag ci lañ nemmeeku ñi nga xam ne mooy japonais jamono bii ñuy wax ni ñoom am na ay nationalité juif yu ñu ragal yu ñu nangu ñu ragal ni dafa look a xeex bi waaye beneen bi mooy Chine réussir nañ foofu ci bee ci Beijing ci capitale Chine dajale mboolem kuréelu palestiniens yi ba ñu joxante nañu loxo ba war nañu créer benn gouvernement boo xam ne gouvernement boo xam ne de réconciliation lay doon maanaam ñun mook ñoom Mahmoud Abbas ak ñëpp ñoo ci bokk yem ki nga xam ne mooy euh, Marzawi euh, Marzuqi mi nga xam ne moo fa teewaloon waa Hamas firndeel na loolu démb kon mbokk yeeg xarit loolu foofu la ñuy taxawandi ci xibaar yi di ñaanal jàmm ñaanal sutura ko mboolem foo xam ne rek dëgg dëgg dëgg mu ngi ci àdduna bi rawatina nag ci biir Palestine ay Soudan ak réew jullit ñi yàlla jéggal ñi jiitu yàlla na yàlla yërëm leen ñun ñuy dund yàlla na yàlla bàyyi ñu fi ak suñu sab ak suñu dal saxal ci iimaan ak yaqin ak tamkin defal ñu jàmm defal ñu nawet bu barkeel jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi